suñuy jaar jaar daal dañu nekkee ndaw bëgg xam-xam daanaa wax ne su ko yi doon jar danaa ko am. maa ngi di ñaanal di ñaanal ci yéen ñaan ndax lii day képp koo xam ne ki yàlla at na nga dajale ko te dara digal na te lu may sant jàmm ak salaam rek doy na moo sant kon nañ ko kóolu yàlla dinañ wax ne ci gën a tuuti ci taalibi Cheikh Moussa yi tey laay wax toujours ne ci gën a tuuti gën a néew xam-xam laa wax ne man moom ëpp xam-xam sax man suñu na ci li may tëjee sama waxtaan ak njaboot mboolem xam ne kii kër Cheikh Moussa nga aju rek maa ngi ñaan nga fexe gën ku dul doo gënee mukk nag maa gën maa gën maa gën waaye déedéet doomi aadama doomi aadama rek lay diggaale ak lu mën ci kàddu ci wax ci jëflante ci demlante ci dikkalante ci lu mën a doon doomi aadama rek nga koy fekk waaye maa ngi ñaan yow moomu nga xam ne tey taalibe Cheikh Moussa Cissé yaakaaroo gudul yàlla yële tamit jëmi Cheikh Moussa maa ngi lay ñaan loo mën a ak doomi aadama ci kaw suuf. lu mu mën a doon la ca gën na nga fexe jiitu ko bu yaafus mukk ba ko koy diggaale jiitu la tel gën kon fa tabarakallah waxtaan bi du ma ko sori sant leen rek gërëm leen ñaanal leen yàlla may ñu fekkee fekkee fekkee fekkee ay jamono ay jamono te jamono ju nekk la ngeen di ma ñaanal may man di jël ay matuwaay ci liggéey bii ndax liggéey la boo xam ne bu am solo la kenn ku nekk ci yéen tey dana woote waaye su ñaar ñetti ñetti kuréel rek kay daje waaye bii moom am na lu wane lan la wane mooy borom kër gi woote su wootee kenn du des comme su wootee rek kenn du des maa ngi leen di dekkee ko ci yéen kilifa yi ci barke Cheikh Moussa Cissé laa leen koy ñaan kenn ku nekk. ne tey moroomam def ko ni boppam kenn ku nekk na jël moroomam def ko ni boppam te xam ne ah, yàlla moom li muy def def na ko ba noppi Cheikh Moussa amul cuune de man de jàpp naa ne Cheikh Moussa amul cuune amoo yaafus baaraam la foo sutal waaye lépp baaraam kon jërëjëf wax naa ne du kenn du ma ko mën waaye maa leen di xamal ne Cheikh Moussa dénk ne lu dul xam-xam ban xam-xam maarifatu billah ku mos dikk jox ko sa bopp te bàyyi ko sa bopp yóbbu na la ci yàlla ba ngay ne la nag mu ngoog matal naa ci yow moom daal na wax ne su ma la yóbboo ba neen sa borom a nii mu daal matal naa ci matal naa ci xale dama teew dara bàyyi naa la sax loo ma fi yëkkati tàllal ko ko dana ko jël delloo ko yàlla Cheikh Moussa Touré koy wax léegi Cheikh Moussa ak mbaaxam soo koy wax fii la fi yore man de jël naa ci ay xeeti mbaaxam yoo xam ne kenn mënu laa wax ba mu xam dañ laa tiim ñam nii defandiku ba doon nga jël bële bale ñoo bëgg a bale mu ne la taxawal nga ne tekk mu toog jël bant bi secrétu di secrétu ba mu yàgg nga ñëw di tibb ci jëre bi ngi ci jàkk di xool mu ne la ati bale dugubam kenn mosu koo sànni diir li ma nekkee moom du ko moom kenn su ko fa moom mu ngi ci liggéey bu rëy a dugub bi daan doon ni fii ak fara doom ngay waaye kenn ko sal day nooroo picc yi noor ci di lekk di dund di ci lekk soo ne sa yaa yàq dugub ji da mën a aar waaye yàqoo ñeen ko jëfandikoo premier yëg-yëg lañ te soo ci sàkkaar demal ba fekk kenn xam ne boo leen fa fekkee lor la te soo leen gaañee lii génn ci sa yaram bii moo génn ci seen yaram xanaa yow soo ko jëfandikoo yàq la nga naa ah, déedéet mën a kon bàyyi la ñu jëfandikoo suñ demee ba noor bi jeex ñu jël dugub ji yóbbu ci gannaaw kër gi làpp ko buñ ko làppoo xetar bi mën a bàyyi la noonu ah picc yi toxu fa suñu demee ba yàlla jëlee bépp taw man mii lay wax dina leen jël xetax bi tasaare ko ci biir tool loolu ci la ñuy wéy ba euh, perte moomu sax. mu mel ni kon kon ni ko sëñ Moussa waxee léegi mbaaxal Cheikh Moussa Cissé xam ne sax xam ci yeggal jéem parce que day mel ni euh, dafa am leneen lu muy niroo waaye naqari naa dab de. naqari naa def de nit ku jub nit ku bëri xam-xam nit ku mën a muñ nit kuy jéggale nit kuy jëlale suñuy jaar jaar daal dañu nekkoon nag dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam daan naa wax ne su ko xaaritoon jar danaa ko am